Asmoon TV, révificateur des valeurs. top, Allez, Conduit e s Mais en vitesse, conduit en vitesse, en vitesse. Là, là, là, là, viens vite Allez. Vite, vite, vite. Voilà. Là, ah, vas-y. Tac, tac, tac, tac, on Là, là, là, vite, vite. Vite, vite ça, mec. Top Allez, allez, allez, Super. Sorti là. Vamos, Alan. É bom? Vai. Go! É, Sevian, Sevian. Vite, on sort, on sort, vite. Qui ah, Ernest. Monsieur é Ibrahim Tiali. Monsieur é Ibrahim Djouma, Soukoum Delgado. Exato, você lá. Você lá número 6. monsieur Ernest Jean Mendy monsieur Christophe Baraye monsieur Amady Ba Ñama monsieur Ahmed Tare monsieur Aliou Sakho monsieur Cheikh Cheikh naa Cheikh Sadbou Diouf yaay la dugal titulaire remplaçant monsieur El Hadj Mamadou Thioune monsieur Cheikh Abdou Khadre Danso monsieur Moussa Koté monsieur Omar Danfa monsieur Mohamed Niang monsieur Mamadou Boiro capitaine woo naa ñëpp kan laa woowul woo nañ ñëpp les gars ñu déggandoo ko ayo yow ci loone Mbour TV reede li ngay reetaane ba duñ ko defee match ah ah début match ngay ree da ngay concentré wu ci liggéey bi parce que soxlawuñu leen remplacement dafa am lu ñu koy doyee mooy saa bi soo ci banc da ngay toog lire match bi ñu xol yan faay mo ci manqué. comprendre jox benen boy bi benen ah mais ma jox. non non bi ma maa koy defaral quoi moo comprendre nga après na ko comprendre nga bëgg soo leen ci bam ngeen concentré lire match bi amul wax ñi wara wax moy ñi ñi tok ci bam bi dañuy wax li ñu wara régler ñu ñoo régler mais du yeen ñi xam loolu wara régler xol situation match bi ni mu demee ak lan moy manquement match bi ñu duggal leen ñen exécutif. dama bëgg ngeen am concentration totale parce que match la plupart ñi toog ci banc bi ñoo koy jeexal ñooy régler situation yi xam nga fii nul est indispensable ñii ñoo doon joué titulaire yi mooy ça veut dire nul est indispensable si ñëpp lañ yaakaar donc ñii ci blessure lañ jógee ñoo ngi door ñëw duñ jël risque di leen dugal noonu ñuy joué donc euh, comprendre nga wax ñeneen ñi fi nekk ñi toog ci banc bi nañu wóolu ñuy dugg ci biir terrain dama bëgg concentration totale moom laa soxla ba soo duggee man li ñu lay rectifier du bari wala ñu ne saf li ñu lay rectifier du bari dina fekk yow nga comprendre lépp donc xamal ne ne match bi ni muy débuté ba boo leen di dugg yéenay jeexal match bi ah ok. ah di ñaan tamit suñu borom bi nga xam ne moo mun yàlla nañu yàlla may ndam parce que catégorie bii bëriwul équipe bu ñu góorgóorloo tuuti ah boo amee six wala six sept victoire rek yaa ngi si carré bi parce que équipe cadette yi bëriwuñu. te bii mooy suñu compétition majeur boo xam ne mun nañ si am visibilité ba si ñaan yàlla ñu am si ay sélectionné en en di set waaw di ñaan nag mooy li ma lay wax rek année bii di année jël job quoi sur toutes les catégories xam nga yal na yàlla kattanal ñu dooleel ñu indi jàmm ba ñu mën a atteindre objectif bi quoi. waaw match yi moom préparé nañ comme ni ko war a préparé waaw coach yi préparé nañ préparé nañ ko waaw. soo xoolee lépp lu war si match bi def nañ ko moo nekk tey dañu ñëw rek ñëw appliqué waaw te tey dañu ñëw ak confiance pour gagner match bi waaw ñu xool lu nekk suñu kanam te loolu la ñu def tey si match bi te dañu ñëw pour gagner incha allah ci yàlla andee te dañuy gagner sax incha allah. TV revivificateur des valeurs.